al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi nuyoo tey di ko teg ci loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xabbaan yal na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla na ko yàlla boole mbokk mi laaj nee na fu mel ne Tuubaa nga xam ne dafa bari ay jumaa koo xam dafa demoon di julli ci jumaa ji mbaaxoo julli fekk ñu julli ndax day julli tisbaar rek wala day seet jeneen jumaa ba mu wóor ko ne julli nañ mu door a julli waaw bu fekkee ne day mën naa dem ci yeneen jumaa joo xam ne xam na ne eh, julleeguñ te lor nekkut ci dem ga eh, suba daa war a dem julli ji foofu rawatina fii nga xam ne jumaa yi mën naa am duñ soree noonu bu ko leeree ne nag jumaa yëpp julli nañ moom bu defee mu julli tisbaar wallahu taala alam mbokk mi laaj nee ku amoon ay jafe-jafe ak nit ba yóbbu ko ci yoon nee na dem yoon teg kooku ay daan am alal juñ ko fay mu ne ndax suñ ko joxee nit ki ñu tooñoon sañ na koo lekk waaw bu fekkee tooñ jëm ko dodee ci alal la jëmoon wala boog tooñ nga daal jur lum ko yàqal tax mu yóbbu ci yoon borom xam-xam li ñuy wax ne lu tolloog lam ko lor sañ na koo jël ca taan yi lañ ko lañ ko laaj masalan alalam la yàq bu dem ñu teg koy daan lu tolloog alal jëm yàq ci daane la sañ jël yokk ca nag xëy na la doon la mu feree nga xam ne tooñ bi mu ko moo tax mu fere ko ci tribunal ak yooyu loola mën na koo yokk ca ndax ci lool ji la dugg bu ko tooñ itoon loolu du lu weesu loolu nag sañ koo jël bu xoolee daal masalan ne liñ ko daan lim lépp ngir waa ji téeméeri junni la tollool mu di lam lam ko yàqal ak fere yam fere ngir jot ak xam sañ naa jël ca daanee téeméeri junni waaye la suñu ko jël wallahu taala alam kooku muy laaj ne na koo xam ne wóor na la ne lim lay jaay alali sàcc la yow nga jënd ko di ko jariñoo li atteem loolu dëgganut dëgganut ab jullit e, di jëfandikoo loo xam ne xam na ne alali sàcc la ki ko jaay moomu ko da ko sàcc e, jaay ko ndax loolu bokk na ci liy tax mu ba du feeñ kon mu waru koo jël dëgganut ci ab jullit lépp loo xam ne yëfi sàcc la ñu di la ko jaay maa di la ko may nga di ko jël wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne bu sedd bi dikkee day day tuur ndox tuur ndox yu jege lool nee na te sax léeg-léeg bu jógee dem balaa àgg rek am lu ci euh, wàcc ci yére yi te nee na léeg mu tukki euh, du ma saasu mu di fóot te mel bu boobu lay yóbbaale ñaare muy laaj loolu ci àtte lislaam waaw bu wéree ne ak wéradi la nga xam ne saa su ne da am luy génn ci moom te du ko tay tay loolu moom lu ñuy jéggale la su julli jotee day jàpp rek lay daq ci yéexeem suba na ko julliwaale ndax da ca am jàpp naa ne loolu jar na xam nee na sax ci bi la koy dal waaye bu dee jamono tàngoor du dal kon mel na ne wér di boo xam ne baax na dem ji ko waaye feeg muy wér nag lay taq ci ay yéreem te jegee moom mën na ko julliwaale insha allahu taala wallahu taala alam mbokk mi laaj jullit fay faat euh, luy cës laayam waaw jullit fay faat di am nañu koy tudd ci ay téere waaye xadis biñ ci rotal boroom xam-xam yi xadis yi nee ñu xadis wérul kon julli saa boo xam ne dafa faat nit ci anam goo xam ne da ko war a fay moom lu julli bari bari da koy fay su ko mënta fay fayandoo benn yooyu da koy fay doy mat masalan nit ku bàyyi woon julli ay at ci sagoom nga ne moom coobareem rekk buy fay da koy fay ba mat ku mel noonu wax ne sëriñ bi jàngale ko cay téeréem wax ne bu dee fay bis bu set mu fay jullit juróomi fan maanaam bu julli woon tisbaar tey fay juróomi tisbaar bu defee takkusaan daf ko noonu kooku bu defee at day daal di nekk juróomi at nit nag bu moom ci am pasteur fu bëgg fay julleem ba bay daf yu kooku dañuy wax ne nekkatul ko sàggan waaye loolu dañ ciy dégg nekkoon nit ki bu amee boro julli du rek ay rakkaa yooyu julli mu daal lay faral boro yëpp wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na luy atteb lislaam ci certificat de mariage ak divorce ak décès maanaam kayit bi saxal ñi ni ay ñaari way dencante lañ ak bu sëy sëy ba kayit bi koy saxal ak bu nit faatoo lii firndeel ne faatu na loolu lépp de lu baax la loo xam ne dana jariñ léeg lekk ndax léeg lañuy ñu soxla ko ci ay barab bu nit faatoo ñu bëgg xam ñan ñooy doonu ñu xam ñan ñooy jabootam xam ne faatu na it am na firnde ci faatu na euh, naka noonu bu si amee it ñu am firnde li ma ta bàyyi xel foofu mooy ci lislaam moom bu ñu xasee wax ne diw bàyyam ne am doomam ne diw may naa ko diw rek sa diw ne nangu na say fas nangu moo xam am nañ certificat de mariage moo xam naa la it moo xam am nañ certificat de wasul amuñ ko kon certificat bi nag dana baax ngir dëggal ak nekk seere waaye nag nekkul ab sart ci ci charia moom faw euh, këyit bi day am ñu door a nangu sëy bi wala ñu door a nangu tas bi wala ñu door a ne fu faatu na déedéet yooyu moom ay seere yu dëggal di firndeel dana di am njëriñ ci ay barab waaye nag nekkul sàtt ci wérub yooyu moom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee koo xam ne atteem mooy day wàññi julli waaye nag muy roy ci koo xam ne wàññiwul julli nee na bi ñu jullee ñaar rakka moom mi wàññi nee na mu toog àndut ak moom ñaar rakka yi ci des muy alaaj ateb loolu ci mazhabu maay loolu wër sa demee noonu nit ki nga xam ne wàññi julli mooy sunnaam bis bu royee ci kuy matal day bàyyi sunnaam te matal julli moo tax dañuy sit kuy wàññi di roy ci ku wàññiwut ndax day waral mu bàyyi sunnaam daf leneen loo xam ne bokkut ak li ñu tàmm ci moom Euh, moo tax fu mel noonu li doon gën ñu jiital kii wàññi bu jullee ñaar rakka sëlmal euh, keneen ki nga xam ne moom day matal daal di jub àggale julleem wala boog aji wàññi ji moom ber ak julleem bu dee moom dong la bu ànd ak ñeneen ñu mel ne moom ñu bokk àtte ñu julli wàññi waaye daal boo xamee ne nit kuy wàññi daa roy ci kuy matal dootul wàññi day bàyyi sunnaam def li ilimaam def wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na bu ñuy tudd doom di nodd ci nobbali li xaam tur wi ndax dañ koy wax ci kaw walla déet waaw loolu de sopp nañ bu ñuy tudd doom nodd ci nobbal li xaam ca nodd ci nopp ndeyjoor li xaam ci nopp càmmoñ tur wa ci nopp ndeyjoor wax ko ci kaw nag moo gën ndax dañuy wax ne nodd gay li xaam bi dañoo bëgg xale bi eh, mbokk ci li muy njëkk a dégg mooy kalimatu tawxiid moo tax sax nodd googu li xaam ba muy door a judd lañ ko bëgg njëkk a def dañu bëgg su juddoo rek ñu def ko du tee nag buñ koy tudd ñu defaat ko euh, loolu nag lu ñu sopp la euh, waxtu wi wax ko ci kaw ni ñu dëggir moo gën ñu fi teew seere ko xam ne moom lañ ko diw lañ ko tuddee waaye nit ci mën naa am doom rek daan sama doom ji tudd naa ko diw euh, nit ñi dégg bu bàyyi it loolu mooy tur wax wallahu taala alam mbokk mi laaj ne nag ku baaxoo daf dogub xasida ginnaaw timis ndax de waxtu wu ne dafa war a nekk bu ginnaaw timis mën na koo tàmbali njëkk timis waaw jëf yu baax yooyu yëpp day muy xasida muy alxuraan muy ay tudd yàlla ay zikar lépp lu baax lu nit def la ca gën mooy mu saxal ko ngir mu sax nag bokk na ci la la cee dimbale nga wutal ko waxtu nga xam ne waxtu bii saa bu jotee nga def ko loolu lay dimbale la waaye soo manee nag di ko def ci waxtu yi bokk te man koo saxali dara nekku ci ci am solo daal mooy yu baax yooyu bu ko nit ki tàmbali li gën mooy na fexe ba di ko jéem matal kon lu koy dimbale ci man ko matal rek loolu baax na wallahu taala alam mbokk mi laaj nit ki bu duggee ci wanag ay weñ ne fa weñ yooyu nag di jóge ci sobe si di dal ci ay yéreem di ci bàyyi ay jeexit luy àtte loolu waaw yooyu daa bokk ci yuñ jéggale weñ wu jógee ci sa bayal dal ci sa yére bàyyi ci ay jeexit dañ koo jéggale ndax loolu mooytu ko dafa jafe ay weñ mel ne ay yoo lu mel ni ay matt yooyu yëpp di am ay jeexit yu mu bàyyi ci sa yaram mbaa sa yére loolu lu ñuy jéggale la lu dul nag ne dafa dafa baree bare ba ñaaw nga xam ne rus nga koo sol di génn bu feeñee ci yére yi ba nga rus koo génn la booba sopp nañ nga fóot ko nga dindi ko moom nga fi ñu ko julliwaale waaye bu àggul foofu nag dara nekkul ci julliwaale gi wallahu taala alam laaj koo xam ne dafa judduwul ci yoon duñ koy ngénte ndax moo ki juddu ci yem waaw ci jox gi aw tur ak bu ab gàtt amee ñu rayal ko dañoo ci yem ndax moom ak ñàkk juddoom ci yoon yoonam nekku ci ña ko def ñoo gàddu bakkaar ba waaye loolu du ko xañ aw tur du ko xañ rayal ko ab gàtt bu mën nekk loolu bëgg la waaye nag yaayam mooy def loolu lépp yaayam mooy kilifaam aw sant tamit lañ koy jox kon mooy joxe tur wi nañu ko tuddeel nangam góor gi nga xam ne moo jaxasoo yaayam euh, du bàyyam ci sariya dee su ko jox aw santam ñoom ñaar duñ doon nañ sequñ dara kon moom mu ñëw nag mel ne kuy ngénte si doomam ànd ak nitam ñuy bég loolu tooñ yàlla ba noppi bëgg ko ñaawal la loolu jaadu mu dara ci sariya moo xale bi kon yaayam mooy kilifaam waaye tudd googu nag ak jox ko toog reyal ko gàtt bu nekk bu mën nekk moom loolu lu ñu bëgg la ndax doom bi yayoo na ko te ñàkk juddu gi ci yoon du ko xañ waaye dañu bàyyi ci lañ koy jox yaay may mooy joxe tur ñu tudde ilimaan koo tudd waaye nag duñ ñëw di ko xawaay daf ko xew mbégte ndax lu mel noonu moom euh, tuub dellu ci borom bi lañ fa war a jàngale woon nañ ñu xupp leen ba nga xam ne lii du ku dégg dootoo ko def moom mi ko defoon it dana fexe ba dootu ko dalati wallahu taala alam mbokk mi laaj nit kuy tux cigarette wala muy naan ndax lislaam may na la nga nuyu ko ni ñu nuyu ab julit waaw ci masab Malik day dañuy sit nit ñi nga xam ne ay moykat yàlla lañ nga eh, romb leen njëkk leen a nuyu dañ ko sit doon buñ la nuyoo ñoom mën nga leen a fay rombu leen ñu ngi ci jublu nag jamono yi ñuy làmbaal nekkee ci mu yàlla gi loolu nga di leen fekk noonu di leen nuyu loolu sit nañ ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa dëkkoon ci ak kër ba mu yàgg nee na mu bëgg a jënd kër gi dem banque ngir mu lebal ko xaalis bu mu jënd kër gi banque nangu loolu waaye na ne ko xaalis bi yow lañ la koy jox bu defee nga jënd kër gi bu fekkee ne banque day lim la lebal da cee teg dara loolu mooy riba dala nangam di la fay lu ko ëpp loolu dagoon ci lislaam bu fekkoon nag da nga koo wax ne kër gi daa bëgg jënd banque dem jënd kër gi ba moom ko moom banque bi sañ na la ko jaayaat teg ci dara loo xam ne moom euh, moo tax mu di ko jënd di la ko jaay te mel na kuy def commerce rek dañuy jënd marchandise teg ci dara jaayal jaayat la ko bu fekkoon nag banque daa jënd kër gi ci borom ba moom ko ñëw nag lebal la ko yow ñu man kat maa ngi ko jëndee nangam nangam fere naa ci nangam boo ma tegalee nangam ma jaay la ko loolu sañis na taala alam mbokk mi laaj lan mooy al bidaatu ndax day dégg ñu naan kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar al ci diine mooy loo xam ne dañ ko sos yokk ko ci diine ji te bokku ci woon xale bokku ci diine ñu ñëw dolli ko ci nii yàlla santaane ñu julli julli juróom ku ñëw sos geneen julli daf ko farata ni ki julli juróom loolu day doon day dugg ci bidaa wala sax mu andi beneen xeetu julli yu bokkut ak ni ñuy jullee jublu ci yaamu yàlla loolu lay doon lu mel noonu la ñuy tudde bidaa loolu moom daganut ab julli di ko def wallahu taala alam <coughs> eh, mbokk muy laaj nee na ndax dagan na nit takk loo xam ne wala mu sangoo ko loo dugg dala yomb nga xam ne boo doon leb nit boo demee dalay lebal waaye bu fekkee day lam takk mbaa mu sangoo ko day loo xam ne dalay tàggatal nit ñi ba loo bëgg si ñoom buñ ko narutoon boo dëkkee ñu naaw ñu def ko waaye loolu daganu ndax loolu xeetu njabar la amaa ki bind alxuraan takk ko wala mu sangoo ko nag ngir yàlla musal ko wala boog yàlla dimbale ko loolu dara nekku ci waaye bu dee loo xam ne nag xam nga ne lii nga takk moo tax nit ki lebal la waaye bu dutoon loolu du la lebal boobaa nag loolu xeetu njabar la darun teeb jullit wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na soxna soo xam ne day jotee borom këram nee na saa buñ xuloo nag borom kër bi da koy wax ay wax yu rafetut ba noppi ne ko demal sa yaay mu ne ndax su ko waxee ñaari yoon wala ñetti yoon luy atteem waaw demal sa yaay day moom mi ko wax moo mën a wax lan la ci jublu bu ci jubloo fasee moom bu ko defee ñett yoon sëy tas na du ko mën a takkaat lu baax de waaye nag moom moo mën a wax ne demal sa kër yaay ji fase laa ci jublu wala jublu moo ko ci bu ko ci jublu daal mu doon ko waaye bu ko jublu nag du ko doon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne ilimaan da ko war a benn rakka mu ñëw ànd ak moom ilimaan julli bay sëlmal jóg bi mu jógee ñu sàbbaal ko mu toog bi mu toogee daa di sëlmal sujjóot ba'da salaam nee na buy sujjóot ba'da salaam moom maa maamoom ji day ànd ak moom wala nu muy def moom moom ji bu ilimaan ji sëlmalee day jóg du ànd ak moom sujjóot ba'da salaam day jóg àggale rakka bi ko ilimaan ray woon bu nag door a fay sujjóotu ba'da salaam bi bi maanaam sujjóot na ko waaye du ko sujjóotu nag moom day julli ba àggale moom bu sëlmal door ko def bu fekkoon nag xabla salaam la ilimaanam di sujjóot day ànd ak moom sujjóot ko waaye bu ilimaan dee sujjóot baax da salaam yow mi ñu raw ci julli gi da ngay jóg àggale sa julli boo sëlmalee door koo fay yow wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na moom bu takkoon soxna fase ko ñetti yoon nga xam ne dootu ko sañ a takk lu dul baax de zaw jigéen ji sëy feneen ba tas ba iddawu nee na loolu am mu takkaat ko nag ndax su ko takkaatee moom da koy fasewaat ñetti fase mu door ko aram waaw bu fekkee ne moom ñetti fase yi matoon na ndaw si dem ba am beneen borom kër tàggoog moom iddaw mu takkaat ko boo koy takkaat asma euh, bu bees lay am yees maanaam bungu ma sëkk la feeg fasewaatu ko ñett yoon du ko araam kon bu ko fasee benn yoon mën na koo fayle bu dee fasem payle bu dul fasem payle mën na ko takkaat kon day mataat ñett ñu door ko wax ne ko bala ngaa bala ngaa takkaat da ngay def bande soo yi wallahu taala alam